sëñ Moustapha Sy Sonko n'a pas besoin de toi billahi barke Rasulaay yow nan la Sonko di ñëwee ba Tiwaawan nga yónnee sa doom ah man de loolu lañ ma wax ne moom la def ak Khalifa Sall ak Aïda Mbodj nga yónnee sa doom mu leen di recevoir pour yow da nga leen. ma ne leen def leen attention parce que il est capable de faire un revirement cent quatre vingt degré dem ànd ak Macky Sall boo waxee mu ne yàlla moo wan moom moo wan signe bi. da jël sa bopp teg ko foo xam ne pour yow war nga sax mën a toroxal Sonko. mais sëñ mu Sy Sonko ci affaire politique Sonko moo la gën a garaaw foofu gars yi dañuy jox seen bopp importance <laughs> bu ñu am am les sëriñ laa da nga dañoo normal sëñ Modou Kara sëñ Modou Kara pour yéen normal pour yéen ni yu bugaan yi bëgguñu ko moo tax bugaan instant yi mu am problème dugal benn tànk génn benn tànk même sëñ Moustapha Sy dafa mel ne loolu la bëgg def dugal benn tànk xam nga avertiroon naa leen sëñ Moustapha Sy sëñ Moussa Fassi ba mu ne bëre annoncé li muy annoncé di wax naan PDS ak Khalifa Sall dañuy def ben coalition Sonko bu fi jëlewul Macky Sall mako fi jëlee la laa leen wax dama leen def leen dank ci sëñ Moussa Fassi def leen attention dé moo ko Modou Kara ñoo xawu nduro dé def leen attention ñom dañuy jékki-jékki ànd ak yow suba ñu né Yalla war na ma benn leer war na ma benn misaal ne ah dama nga wara jappalé Macky Sall gis nga Modou Kara lu nekk yekk na Macky Sall opposition bi ñew leen ah bo lu ñewé ma def ben xawma sax mu ko lu may def tirage la xawma après ñu xol kan ñu seigne mudou moko fi seigne mudou Kara moko fi mu ne seigne moutakha yonam nekkul ci politique moko wax ñu un mois deux mois légui mu nan ñu la Moustapha si lan lu recevoirul Sonko.

pour yéen sëñ Modou Kara ni ngeen di xalaate ak moom ni muy xalaate benn la ñooñu ay ay yonent lañu teg seen bopp sëñ Modou Kara pour moom moom xam nga du du du doom du doom est que sët la sax du sët du sët direct defe naa ci famille xaw ma kii la bokk rakku sëñ Touba bi nu mu tuddati maam xaw ma lan wax leen ma rakku sëñ Touba bi moom foofu la bokk mooy maam mais sëñ Modou Kara tey boo maam Thierno merci boo ko laajoon danaan la héritage sëñ Touba.

jabar bu ko neex am talibé diko jox ay milliards muy dawar limousine bu koy sujjootal nit bu ñuy sujjootal da ngay def sa da ngay dem ba def sa bop yonent def sa bop yalla lan moo tax am ay talibé yu ñu japp tejj leen ci ben kër def leen ay jam tejj leen ay kër ba am ba am ci ay mo ka bobu anamu lu tax kenn waxu ci da ngay yak ni ñii ay nit lañu seigne Moustapha si mo gën sax mystique seigne Modou karam sëñ Moustapha Sy mom mom il a une une du ma tout arrogance mais il a une idée il a une idée très spéciale de sa propre personne c'est c'est le narcissisme à l'extrême c'est le paroxysme de la mégalomanie Manam, yow da ngay jël sa bopp teg ko foo xam ne pour yow war nga sax mën a toroxal Sonko mais sëñ Moustapha Sy Sonko affaire politique Sonko mo la gëna a fouf té Sonko dafa jang alcorane sank rek la dégg ben affaire ben ben aaya bu mu don bu mu don bu mu don bu mu don tare di firi parce que seigne Abdou euh, seigne John John xam naa seigne John <laughs> waaw pourquoi war nañ ko mën tuddé seigne seigne John jom seigne Antoine jom mo dem bay ñass xawma difa di alcorane après même aaya bobu am ben site bu ko takalé wax Sonko ni mu ko doon jàngee lamine Sonko bi dafa set ba pare li muy wax dafa ko xam Sonko jàng na alxuraan mu sëñ Moustapha ati mënuloo tiita mënuloo tuutil Sonko xëy na affaire mystique peut-être yaa ko gën a ay mais ci politique yow mënuloo ñu apporter tous xam nga gars yi il faut que mu leer seen bopp. Sonko n'a pas besoin de toi on n'a pas besoin de vous Nous dañu yakarne ne mu pour mom mom chef quoi nan la Sonko di ñëw ba nga yone sa ah man de loolu lañu la def ak Khalifa Sall ak Aïda Mbodj Nga sa mu recevoir pour yow da nga leen bëgg wax imposer man man man ma ne xam-xam ma ne personnalité

limuy wax Macky Sall sëñ Nourou Kara sax ñemewu ko wax mais nak da nga leen di comprendre parce que ñom dañu juddu fekk seen papa nek ay serigne nek walio xam nga ne maxtum koku moy révolutionnaire man limay may déglu ci maxtum rek man maxtum xaw ko mais limay may déglu Pape Alé Niang di ko rek déggaan naa ci ben ba muy wax jeunes dañ leen di tégal liberté dañ leen di indil ben liberté bo xamné day neub sen liberté dilen indil ay cholédéra dilen indi ay lamb dilen indil ay ay football mais nak xam nga mais mais loolu moy sëriñ mais mom il il n'arrive pas son père à la cheville sëñ Moustapha Sy il a les il a la potentialité mu dem ba romb mais mais il n'arrive pas son père à la cheville parce que day layam layam li gars ngeen baal bu tay nga ne Macky Sall suba nga ne ji fii lañ fi japp Khalifa Sall mu ne Khalifa Sall buñ ko jappé

Manda man daal lépp lu mu mënti def mën naa ko baal bañ a recevoir Sonko garaaw mais li may bañ mooy ba ñu dem ba au dernier moment nga bàyyi man damay wax rek attaqué wu ma ko boo wu ma mais xamal laay bañ ñu dem ba au dernier moment li ñu def nga ñu koy def Babacar Touré mi ngi nii duñu attaqué Karim Xurum Xaq mi ngi ñuy attaqué ñu sân cơ nhưng nhanh dạng cơ sân cơ nhưng dạng cơ sân some cold. No.